naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum ni yéen a safo Equivox TV jeudi 21 juillet 2021 ma ànd ceeg sama xarit sama ki nga xamante ni moo di Babacar Babacar maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Abdou. Babacar na ko suba si. ba sant yàlla bu baax a baax. Babacar nga def balaa woote jàmm. waaw man de xam nga jàmm laay dox man moom lépp lu dul jàmm dama caa bëggul dara waxuma ca dara. Ah, kon baax na. comme li yi wax rek. samay bët daal mhm. lu baax laa ci bëgg di xool mhm. jàmm laa ci bëgg di gis mhm. samay noppi tam bi kazalika naka noonu ak sa sama làmmeñ noonu lépp luy safaan daal yal nañ ci yàlla musal musal ci bépp jàmm ak kon su ko defee mbokk ñu dem seetaan di daal di dellu siwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 8 juillet 2021 dañuy yokk xëy doore ko bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk fa mu xëy génn fenn la Boy Niang numéro 2 tey moo nekk ci xatu njëkku yëglikaay bi di sunu làmb yëglikaay bi nag la mu xëy xamle nee na Boy Niang daal soo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii moom ay boxeur yoo xam ne daal ay français lañu moom la recruter daal ngir nag maanaam wàllum xeex ba ci combat ak tafatin maanaam daal lépp lu jëm ci wàllum box moom moo xam xeex la ak yu xeetoog mooma Boy Niang maanaam négligé wu ca dara dara dara dara fi mu nekk nii daal mu nga cay liggéey bu baax a baax a baax moo tax yëglikaay bi jàpp ne day ah booy ñang mii ndax mënta indil tafaatin ay jafe-jafe ci seen combat bi nga xam ne ci leenu jëm yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy ñëw samp boobu laaj mel ni ki nag moom bay booy ñang deux daal loo ci mën a dégg moom jàpp na ne day lu la waay mën a wax daal jàpp na ne bés ba bu ñu ca yeggee moom wàllum xeex bees ko ci woowee bu ko ci tafaatin adversaire am wooye day dina ko tontu ba mu neex lool dina ko xamal ne daal moom xeex moom du lu mu tële moo tax jibril kanji moom di kot su ci wàllum box daal la mu xëy xamle nee na li am ba des daal booy ñang deux maanaam soo bëggee dégg-dëgg mën na xeex ku mu mën a doon ci làmb ji yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne moo Boy Niang 2 am nañ combat wala contrat waaye bëree guñu muy Balla gay numéro 2 comme war a bële muy Bombardier le 31 juillet yëglikaay bi di sunu làmb nag mu ngi nuy xamal ne Balla Gaye 2 depuis le 10 mai bii nu génn mu ngi woon ca INSEPS ga ca France maanaam fa la nekkoon di tàggat boppam di préparer combat waaye daa mel ni nag fan yam fa doon def daal wala bés yam bëggoon na am day jeex suba yëglikaay bi ne na daal suba ci àjjuma ji daal la Balla Gaye 2 fas yéene nag wàccaat ndakaaru ngir continuer ci ab liggéeyam kam ko seqal nag muy Bombardier yëglikaay bi ñëw na ci moom ak loo xam ne ni yëglikaay bi moo def tey taxaw seetlu jàpp na ne Bombardier lu jëm ci ay revanche ak la nga xam ne ni wala boog ay revanche daal maanaam jël revanche ak joxe revanche daal am na ci ay bés yu neex am na ci ay bés yoo xam ne yu naqari la sunu làmb moo xëy tey ñëw dañu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom ka nga xam ne nii lu naqari la ko bëgg teg moom moo di caat ka ko bëgg teg nag muy Modou Dia moom war a bëreel dimanche yëglikaay bi sunu làmb xëy tey déglu Modou Dia mu jadaal la mu xëy xam le na xam naa ay su caat ak ay faiblesse am fa mu mën ak fa mu fa nga xam ne tële na fa daal mu jëne na lu ma xam la te buñ ca yeggee dimanche dinaa ko wane ba Sénégal yëpp teg ci seen bët ngeen koo xam ne nii moom la mu bëgg ñu teg ci suñu bët wala la mu bëgg ñu def ko mooy Adama Bopp mi nga xam ne daal kilifa la nekk ci làmb ji nee na daal li am ba des daal nee na wàllum combat yi daal nañu fexe comme yàq yi nga xam ne nii mu ngi am ci arène bi dammi ses yu mel ni ki noonu nee na moo tax daal la mu bëgg mooy làmb ji ñu di ko xel di teel a jeexal 19 heures daal ñu tas ko ku nekk ñi bi mu fekk combat daal di jeex kenn koo xam ne ni moom combat la tëgg tey muy abla muy ki nga xam ne ni moom mooy amaja amaja nag combat bu mu tëgg tey ca stade wala boog ci arène nationale mooy Ablaye Diop bu Yoff ak Pika komba ba daal tey jii la nar a am ngeen koo xam ne moom démb la tëggoon moom moo di idaali ñëngi idaali nag moom la mu tëggoon démb moo doxoon ci diggante Koña numéro 2 mu Kolobaan ak Ronaldinho mu Tëngéej waaye combat ba daal fa mu mujje mooy Ronaldinho mu mujje daan Koña ci kat appi yëglikaay bi di sunu làmb xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki nag ba tey ca biir bés booba tournoi ba nga xam ne moom la idaale ñu ngi daal di tëgg daa mel ni am na mbër yoo xam ne ñu nga ca muy yankaaw kaaw gourdee caat daawda fall ak ki nga xam ne ni moom moo di albarka kayre yëglekaay bi nag nee soo bëggee dégg dëgg maanaam démb moom ba ñu bëree seen poule wala boog seen tournoi booba ka nga xam ne nii moom moo di yankaaw junior moom boo bëggee dégg dëgg relancé wu woon na donte de maanaam ca bis bu njëkk ba defet la amoon ka ko daanoon moo di caatu daaw dafaal kaaw gurne it ma nga xam ne tamit moom moo daanoon ca bés bu njëkk ba albarka kayre moom dem yankaw junior moo ko daan waaye ka nga xam ne moo confirmé moom ware boppam di gën a dëggal boppam moo di caatu daaw dafaal ak ndam la nga xam ne am na ko ci kaw ka nga xam ne nii moom moo di albarka kayre mel ni kon daal caatu daaw dafaal fi mu nekk nii mu nga bëgg sànni karawaas ga ndax nag am na ñaari victoire di six points ña ca des albarka amul benn point ka nga xam ne moo Mor Yanka Junior am na ñetti point nekk deuxième ka nga xam ne moo jël troisième léegi di kaaw gourdin yëglikaay bi moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu benn combat boo xam ne ñu ngi ñuy wax ne taxaw na ko taxawal moo di jamaykee mu dox ci diggante Pape Ndoy Racky Lagros ca Fass ak Abou Niasse ma nga xam ne mooy bras droit sitta mel ni ki komba ba nag la 14 août daal lañ ñu xamal ne ca la fas am keneen koo xam ne tamit samedi jii nu jëm mu nga jëm fa nga xam ne moo di ca Thiès muy Assane Ndiaye bu Bawol production mel ni ki nag Pape Mbaye bu bu bu r daal la boole ak Boy Jobaas fa nga xam ne moo di ca Thiès yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu feneen foo xam ne fa la ñuy dem ci yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes les arènes nag moom la mu xëy ñëw moo di ñaari doom Pikine yi nga xam ne daal jàpp na ne ku ci nekk day fi mu nekk nii ah maanaam la nga dugg daal ay defi dëgg-dëgg moo leen di xaar muy Ama ak Boy Niang ndax ku ne xam na ne Ama mook Modou Lo waree sareen ñoo war a jàkkaarloo Boy Niang mook Tapha boroom takk ci rib moo tax yëglikaay bi xëy tey dikkal ñu ci ñaari mbër yooyu toppal ñu leen ca la ñu dajal ci ay ndam ak ay defet yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki xëy na topp leen muy ña nga xam ne ñoo fi nekkoon ci kalaf ba fi Gaston Mbengue tëggoon ca ati 2006 jàpp 2007 mel ni ki nag moo xam Tafatine la Lac de Guiers 2 Zos ba ci Yékini Senior ak ñeneen ñoo xam ne daal ñu ngoon ca kalaf booba waaye yëglikaay bi nan kalaf ba daal am na ñoo xam ne bu bëggee dégg dëgg ba tey ñu ngi ci làmb ji di wane seen bopp Lac de Guiers numéro 2 ma bokkoon ci kalaf booba yëglikaay bi nee na daal la tacticien moom ba tey daal mu ngi fi de di wane boppam kenn koo xam ne ba tey mu ngi fi tamit di gën a nekk ci biir làmb ji mooy waram takk ci rib muy Tafatine ñeneen ñoo xam ne ñoo ñoo ma bokkoon kalaf ba moom soo bëggee dégg-dëgg ku mel ne bàcc seeraat yëglikaay bi ne na masi sin ba daal daa mel ni yam doon luxu se moo ko réer sunu làmb nag moo xëy wax nu ko keneen koo xam ne bokkoon na ci kalaf booba muy Balla Diouf yëglikaay bi ne boo xoolee léegi maanaam fi mu taxawee ci làmb mooy ci côté sécurité daal ak ci wàllum entraîner ay mbër maanaam coaching moom côté booba lan ko gën di gisa léegi booy say tamit la phénomène ba nga xam ne bokkoon na ca kalaf booba tamit moom daa mel ni léegi daal ci wàllum moodu moodu la mujj ji dem nag féete foofa keneen koo xam ne tamit moom moo de Zos bokkoon ca kalax booba ñu doon ko woy la sow man mel ni ki nag moom wàllam daal léegi ci wàllum business ak yu mel ni ki noonu ca la continuer wala boog ca la nekk léegi di ca yëngutu si Senior tamit bokkoon ci kalax booba yëg likaay bi di lay arènes na moom tamit maanaam daal fi mu nekk nii mu nga ca diggante réewi nasaraan ya maanaam entre Canada Turquie ak États-Unis daal ci diggante réew yooyu lay baagante moom itam noonu la demee keneen koo xam ne bokkoon na ca kalax ba muy Issa Pouye yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg moom Issa Pouye tamit daa mel ni daal li am ba des daal fi mu nekk nii kay maaga daal daa mel ni ndox ma mu dugg fi mu nekk nii daal ah maanaam daal ndox mu yëngatu la moo xam ne daal na mu ci daan féye mu di ko neex lool daa mel ni léegi féyetu ca noona moom mu ngi fii ci réew mi ba moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Lassana Coly moom tey dalal nañ ko fa nga xam ne ni moom moo di les arènes moom nag moom mooy coach national ci wàllum lutte olympique Lassana daal la mu xëy xamle ne na léegi daal gars yi amatuñu motivation maanaam motivation ba daal daa jàpp ne dafa wàcc ci niveau bi nga xam ne moom mooy jeunes yi maanaam daal courage ba nga xam ne moom lañ daan am ak itam bëggoon affaire nee na léegi daal loola wàññeeku na bu baax a baax a baax le simple ba tamit ak erreur ya nga xam ne moom la ca arbitre ya di xëy di def daal fa nga xam ne ni moo di ca làmbi simple ji xëy nañ tey toppal ñu ko yëglikaay bii di les arènes moonu xëy toppal ñu ko ci xalifa ak Aysatu ñaa ku ci ne am nga kàddu yoo xam ne nii andi nga ko ca ci ay leeral waaye la nga xam ne nii moom moo amoon démb fa nga xam ne nii tam moo doon ci arène nationale yi moo xam Equivox TV la moom ñëw na ca démb ca làmb i daal ji ngi ja mel ni ki daal làmb ja démb yënguwutoon na ba yegg ci lool lool mel ni ki daal tey kon loolu moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi nga xam ne nii ñoom ñooy wax ci wàllum làmb Euh, gannaaw bañ seetaanee revue dellu si waat Babacar mu mel ni tey sunu làmb le 8 juillet 2021 dafa ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk ki nga xamante ni moo di Boy Niang la gis des boxeurs recrute recrutés en France appel à la bagarre Boy Niang peut-il s'inquiéter Tapha Tine waaw bu ma ko dee tekki daal ci mhm. kàddu wolof xam naa ne ah recruté na wala boog jël na ut na ñu koy jàngal wàllum xeex wala ñu koy gën a jàngal wàllum xeex ñu koy mhm. gën yokkub xeex ci digganteem ak tafaatin mhm. ndax mën na ko jaaxal ndax est-ce que du jaaxal tafaatin ci booy tafaatin ci wàllum xeex mhm. parce tamit bon mbir boo si jëmee te muy bés bu am solo bokk ci loo xam ne day relance sa carrière defe naa ne loolu mu def xel da kay nangu dem uti ñoo xam ne jàpp na ne war nañ ko mën a gën a teg ci yoon parce tamit un sportif boo bëggee nekk un sportif de haut niveau mhm. il fallait que nga yokk xam-xam yaa ngi dégg te yokk xam-xam nekkul ne li nga xam ne nii moom lañ lay jàngal déedéet da nga ci war a dajale yeneen xam-xam yi parce que xam-xam yi daa bëri te bokkul kii day indi la moo xam ke indi la moo xam ke la moo xam nga dajale ko ñu jox la ko mm-hmm. su ko defee boo yëgee ci biir boo ko exploité mën na la jural njëriñ te booy ñang wax dëgg yàlla ku ko gis rek ba muy bëree ba tey mm-hmm. di nga xam ne à tout moment rek saa bu ñëwee si làmb rek da nga gis ne niveau mu ngi gën a yokk mm-hmm. ci lépp lu mu manti doon defe kon bés bu toll nii ah jar na recruter ay ay nit pour que ñu gën la yokk ci wàllum xeex ak lu jëm ci wàllum combat nuñ koy defee ndax combat bu metti ci la jëm diggante ak Tapha euh, ki nga xamante ni moo di Djibril Kandji il peut se battre avec tous les lutteurs nee na maanaam kii di Boy Niang mën naa xeex ak lutteurs yépp nekk ci arène bi bien sûr ah, kuy dem bay bëri ak Tapha am contrat ak Balla Gaye kay léegi amatut koo mën taxeexa mhm. Boy Niang kay léegi ndax loolu moom du sax xibaar pour man mhm. déedéet ku lekk avance Tapha war a bëri ak moom 8 mhm. lekk avance su Balla Gaye numéro 2 après boo jógee ci tafaati nga war a bëri ji ak Balla Gaye mhm. kooku moom defe naa ne fi mu nekk nii moom ndax mën na ba ba ba mën na xeex mbër yëpp mhm. loolu moom mooy géej gi am na géej gi am na ba tey ñu des ak sunu làmb mu xëy si xatam bu njëkk gi eh, wane ki nga xamante ni moo di doomu Double Less muy Balla Gaye 2 ginnaaw bi mu nekkee Paris euh, euh, à euh, l'INSEPS depuis le 10 juillet nee na Balla gay war na ñibbisi incha allah rabbi demee fi nga xamante ni moo di Ndakaaru Njaay 10 Abdou. Mhm. waaw depuis le 10 mai la nekkoon. la nekkoon une sapsi mhm. suba si àjjuma ji war a ñibbi ah loolu nag moo lay wan ne comme li ma waxoon sànq si Boy Niang mhm. moom itam la ko fa demee bi mu ñibbisee. dëgg yàlla nit ñi gis nañ ne amélioration am na ci Balla Gaye boo ko xoolee physiquement. xool ko si lépp di xam ne ña ko yoroon. liggéeyloo nañ ko teg nañ ko lu metti moo tax itam bi mu jëmee si diggante ak Bombardier muy revanche mu delluwaat ah. Mhm. Euh, yaakaar naa ni kon moo lay wane daal ku ñoom ñëpp ku ci nekk rek boo jëlee combat war a xam nga ne ah euh, niveau bi boo fa tolloo war nga yokku ji li yokku ji li yokku ji li. dëgg la tamit làmb noonu lay demee sportif noonu lay doxee. Mhm. loolu sa carrière di gën dem. ngay gën a yokk ci niveau mhm. ci fayoor ci ay supporter ci mbooloo ak ci lu lay xaar noonu tamit nga war a gën a yokk sa xam-xam defe naa moo tax ñoom ñëpp ku ci nekk rek di gën a yokk sa xam-xam kon bala ñu koy wax suba mu dal ak jàmm ah Bombardier moom ku ne xam na ne moom ci wàllum génn mhm. jàngi yu mel noonu yàgg na ko di def ba defe naa tey mhm. ku ne gis na ko ci MMA bi gis ko ci yeneen sport yoo xam ne dëgg la ci àddina bi <laughs> ba tey ñu des ak sunu làmb moom mi ngi ñëw ci ki nga xamante ni moo di Bombardier mhm. nee na Bombardier et les revanches maanaam entre pleurs et joie waaw digganteem ak ramas yi maanaam am na ci ay naqar am na ci ay bànneex waaw c'est la vie àddina moo tëdd noonu waaw loolu mooy dunya parce que tamit am nay yoo xam ne da koo ñàkk ndax mhm. ku ne xam ne revanche na ak Yékini ay yoon mhm. ñàkk ay yooyu revanche mhm. revanche na fi ak Balla Beye numéro deux Baboy daan ko yaa ngi dégg loolu nag mooy làmba mu jëmaat ci beneen revanche boo xam ne diggante ak Balla Gaye la moo koy joxe kon lool moo tax yëglikaay bi xam na ne ñëw jàngate noonu ah nag soit que ce soit nga joxe ko maanaam ñu daan la nga laaj ramas mhm. fayu mhm. wala nga daan wala nga daan ñu mhm. laaj ramas nga joxe ko borom fayu loolu rek a mën a am moom nag bu ci ne dund na ko kon dañuy yónniwaat yàgg xaar diggante ak Balla ba xam ne muy mujj ñu am yaakaar ni combat yooyu yëpp benn du ci nul insha allahu rabbi Balla ak Bombardier moom nul moom mënu ah man de yaakaaruma ko ah, Babacar man daal loolu moom xalaatu dama doon ko sax ndax maanaam ñoom ñaar meluñu noonu quoi mhm, dëgg la xamuñu wax naa la ko fii démb naa la Balla Gaye ak Bombardier mësu man mësumaa gis man Babacar li may wax mhm. man mhm. gis si làmba arbitre suuf la ñuy deltu ginnaaw dëgg la loolu moo am sax Babacar non non arrière ba arbitre jox leen avertissement ndax da ngeen di arrière mësuma ko gis si ñoom ñaar au contraire ay attaquant lañu ñoom bu doon ci football dama naan ñoom ñaar c'est des attaquants de pointe man nga leen jox kalaasu Samuel Eto'o wala kalaasu Cristiano Ronaldo. <laughs> wala kalaasu Lionel Messi. barke Rasulullah ci bu doon am na. Mhm. bu doon noonu la demee muy Balla muy Bombardier. Mhm. parce que ku ci ne sa combat li li ñu gis yëpp da ngay avancer jëm si kanam. Mhm. voilà euh, ki nga xamante ni moo di moodu Dia euh, répondre na ki nga xamante ni moo di Thiat nee na xam na ay force am ak ay faiblesse sam waaw comme xam na ko. Mhm. te moo ko waxal boppam. Mhm. ñi yay yónni yàgg dimanche soreetul yàlla nañ ko fekkee ci. incha allah rabbi ñuy bëree mhm. ñu nuyu Prince Sissoko mi tëgg làmb jooju. muy combat bu nar a neex moo jabu yoof ak Thiat école booy Bambara drapeau Bougane Gueye Dany muy loo xam ne daal incha allah rabbi dimanche ku ñëw arène nationale

foofu noonu asaalibu ah, moo koy déglu sama yaram day tàng daal egg ci lool Abdoulaye def man ko da caa baax barki rasulaay boo ko mënee te sa xol leer mhm. wallaay coow yu bëri rek mhm. waaye pour nga te pour nga bañ a ak la ndax yàlla nag daa soxla xol bu mhm. a am solo te moom wax dëgg yàlla duñ ko jeté fleur de waaye ku ne xam ne loolu muy def lu mu man la ku ne xam ne itam xolam laabiir na mhm. ah ñun nag loolu xam nañ ko ci moom mhm. te itam nit ki la nga xam ci moom rek nga mën a wax nga mën a seede la ca des nag nga maandu ci bàyyi ak sa borom ndax yàlla moom dara réeru ko dëgg la Babacar kon ki nga xamante ni moo di aadama Bopp euh, mesure contre les agressions les combats se termineront à 19 heures waaw lool la wax na daa war di jeex 19 heures ah mhm. parce que tamit CNC defe naa est-ce que jël sax ndogal yooyu mhm. di jeexal laam ji léegi 19 heures mhm. su maanaam 16 heures et demi yaakaar naa la war di souffler combat léegi nga xam ne 19 heures combat yi dina jeex ku nekk mën a ñibbi balaa jant baa balaa moo lëndëm effectivement parce que arène bi ah, fi mu nekk environnement bi bon ku ne xam na ne mhm. ah, ah xaw na kii parce que ci biir euh, kii bi lañ ko tabax mhm. yaa ngi dégg mhm. te des fois ñu gis fa ay débordement yoo xam ne surtout yàq yooyu tamit lu mën di doon seen seen li ñu mën def mooy jël ay mesures ba nga xam ne ku fa dugg di nga dugg ci jàmm ñibbi si jàmm waaw ah, loolu de bu amee dina gën ndax foofu mu nekk euh, ndax lu nekk lañ fay gis euh, bu làmb bu tasee waaye Babacar les arènes daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk ki nga xamante ni moo di amaa Baldé et Boy les vrais défis Ama et Boy Niang c'est 26 victoires et c'est et waa parce que bu ne tey ay défi parce que ay défee leen di xaar effectivement mhm. Mhm. parce ku ne xam ne ne ñoom ñaar tey mhm. ah euh, ginnaaw seen seen mag actuellement Pikine ñoom ñoo porté flambeau bi dëgg la am na yoo xam ne seen ay rakk lañ nekk biir Pikine yaa yoo xam ne ay doom ñoo fa yegsi dëgg la parce que Ama buy bëri ak Modou mu jëlaan Eumeu Sène kon ñëw na ci niveau bi Eumeu Sène nekk Boy Niang di bëri ak Tapha Tine am ak contrat ak Balla Gaye mhm. te Eumeu Sène daan na Balla Gaye ku ne ñoom ñaar ah jox nañ mbir mi àq jox nañ ko cër ba nga xam ne tey tamit parce que euh, dégolay sama baay. Mhm. wala faalaay sama baay kese du mhm. doy. Mhm. déedéet loolu doyul de. te Youssou Ndour waykat bu mag ba noon na. doon sa baay. doon sa baay ko gën. te ñoom defe naa ne dañoo doon seen baay mais yemuñu si ndono li kese kese kese ndax ndono kese du wóor. wóorul mooy Babacar li may wax su ma nekkee ci musique bi rek Babacar. Mm-hmm. ma ni leen sa papa doon waykat taxul nga judd doon waykat. il faut que nga dem jàngi ko. tarbiyu mm-hmm. xam fa sa mag fa sa maam daa jaaroon wala sa papa jaaroon ba mën man li mu mën. Mm-hmm. nga jaar fa dem mën li mu mën. te xale yaakaar naa ñu ngi ci yoon boobu di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm. waaye Babacar laa mu ji. ah dina neex Babacar Euh, waaw làmb ji dina neex làmb ji dina yëngu waaye ba tey kii ñëw si suñu xët bu njëkk daal di ñëw daal di que sont devenus les du CLAF ki nga xamante ni moo di Tapha Tine Lac ak ki nga xamante ni moo di Yékini Junior waaw ñoom ñooñu ñëpp daal ku ci ne tey am na ci côté boo nekk parce que mhm. ñoo newoon ci CLAF bu neexoon la woon mhm. boo xam ne nii ah ku ne gisoon na poule ba Issa Pouye nekkoon mhm. Yékini Junior Lac de Guiers waaye Zoss Bathie Seras ñoom tamit bokkoon pool mhm. mu newoon kalaaf boo xam ne neexoon trop suñu papa Gaston Mbengue ñu ko ñaan yàlla mu yàgg fi te wér amiin moom moo mhm. jamono yooyu defe naa ne mhm. ah ñoom la nga ñoom ku ci nekk nag tey am na foofeeti ci lam parce que àddina lu mu gën di dox rek ku nekk di am côté booy aw tafaati nag ak Lac de Guiers ñoom la yàlla dogal tey ñoom ñoom ñoo resté. ñoo ngi ci làmb ji ba léegi ñoom ñu ngi ci biir. Mhm. Mhm. ñoom vraiment ah ñoom ñu ngi ci làmb ji ba tey kon. ku mhm. gis na niveau bi Tapha Tine moom Lac de Guiers de ñoo ngi gis mu wàcc ci ci làmb. dëgg la yaa ngi dégg. que tamit bon parce na ay défaite ba pare gëj toog na at ko. Balla Diouf tamit gis nañ ne bi muy dafa jóge Fass dem Aigri Yoff. yaa dégg euh, te xëy na ci côté ndamit toogoon na temps yàgg amatu ko amatu ko yu bëri gisatuñ ko mu bëri mhm. ba sax mu def déclaration que ni sax est-ce làmb mhm. mais léegi ñu gis ko ci côté wàllum bi mu ci jógee tamit mu ci wàllum sécurité mhm. Mhm. yemu ci tamit mu nekk wàllum coaching entraîné ay mbër ndax ñoom Papa ne moom bàllu ci bokk na si entraîneur yi booy sëy sa grand tamit moom bi muy génn <laughs> moom ay defet génnewu ko parce que ay xale la teglante daan leen dëgg ñoom Tidiane Faye ñoom Sitta ak yeneen i booy la daan daal di fi jaar ñëpp ñu xalaatoon revenir en force. Mhm. day resté ci làmb ji continuer semaine. Mhm. mais mu xëy xëy bàyyi fi làmb ji. dem di Moodu <laughs> dem daa bëggub dërëm bawal bawal. waaw xam nga mooy xam ñaamur <laughs> daa bëggub xaalis rek. Ah, su mu waay la. sos <laughs> uh-huh. tamit gis nañ ne moom mu ngi Sénégal. Mhm. mais bon moom itam gis nañ ne làmb ji sori woon na ko bu baax. baax na ci yeneen affaire ay politique ay business jàppal bàyyi. waaye itam ñu ngi waxaat làmbam. yaa ngi dégg. Yékini Senior tamit moom duñ ne bàyyi naa sax parce que bëgg na combat boobu dañuy wax ay combat mhm. mais gis nañ ne boo xoolee entre Canada Turquie États-Unis dëkk yooyu la ëpp lu muy nekk léegi mhm. te yooyu su amee ah bon mën nañ ne xaw na sori tuuti làmb xaw na sori làmb waaye terewul ni promoteur yaa ngi bëgg combat am na ay mhm. adversaire yu koy dëkk saa suñu xëyee ñu ngi sax dañuy sax dox ay combat Mhm. Issa Pouye tamit bërki démb bëri na mhm. mais moom tam daa mel ni affaire am dafa lëndëm fi dafa dafa lëndëm dafa dafa jaxasoo toog na ko ñëw na bëri ñàkk combat mhm. te loolu lépp euh, bon li koy composé mooy xëy na ah, làmb nag dafa xaw a fiir mais ñoom ñooñu ñëpp ku ci ne daal am nga mérite waaw euh, Babacar ba tey ñu des ak euh, sunu làmb ci li xamante ni moo di wàllu làmb dem mu ñu gis ni arène national amoon na combat yu fa amoon ki nga xamante ni moo di sunu xarit boobu daat koy tëggoon Idaali yi waaw démb mu nekkoon deuxième journée wu tournoi bi nga xam ne initié na ko ndax tournoi mhm. ah bi ko fi Fallou Ndiaye defaatee parce que gis nañ Gaston Mbengue fi njëkk a def mhm. Ligue Nicolas waa RDV mhm. Fallou Ndiaye new def ko Idali moo ko defaat en tant que jeune bi mu ko defee boole ay xale yu am talent yu ñu yaakaar ëllëg si lamb ci Daouda Fall Abarka Kayre Yanka Junior Kaw Gourdin première journée ba nag bañ ca demee caatu Daouda Fall daan Yanka Junior Kaaw Gourdin daan Albarka Kayre te bi ñuy démarrer affaire yi bi affaire bi taxawee dañ ne woon mooy favori mhm. première sortie mu am défaite mhm. démb nekkul deuxième journée bi mhm. biñ ci duggee ki nga xam ne moo di Albarka Kayré Thiat Daouda Fall daan ko Thiat Daouda Fall may wax ne moom ku jar ndax xale bu tekkaaral la waaye bu mën a bëre bu xam lu muy def am na six points actuellement ah, Yackaw Junior tamit dikkaat en force daan ki nga xam ne moo di Kaaw Gourdin démb am trois points nekk deuxième kon mu mel ni ah fi nekk nii Thiat Daouda Fall mu nga leen bëgg a jiitu ndax am na six points mhm. waaye nag troisième journée ba mhm. suspense ba dina bëri mhm. ndax nag problème bi mooy Albarka Kayre moom mooy bëri ji ak Yankaw Junior <laughs> Babacar yaa ngi wax lu nar a neex Yankaw Junior kële euh, ca moo kaw gourde te foofa kii day am six points fii kii am bu fekkente ne kaaw dafa daan day tolloog day tolloog moom bu fekkente ne kee daa daan day am neuf leen di jiitu kon Yankaw itam day bëgg daan Albarka Kayre pour am six am six points albarka tam day bëgg daan pour marquer 3 points pour tolloog yaakaar mi muy bëri. Ah, kon Babacar combat yooyu di. non dana neex dana neex. lu neex la lu la indi. Kaaw Gourdin moom maa ngi koy suivre xale la boo xamante ni ku am jom la macha allah. waaw Kaaw ku mën a bëree waaye Babacar dafa am xale boo xamante ni Babacar <laughs> dama ko gis euh, ci Vox Arena seen journée bi passé mu di petit avion. petit avion ay petit petit avion <laughs> naaw rek la kay yaa ko reporté kere sax boobu barke jom gi nekk ci moom. waaw ak fit gi ak mën a bëre gi Babacar foo ko natt weesu na ko. xale yi dañoo mën a bëre te dañuy mhm. làqu. boo leen mhm. mayee occasion bu la moo tax petit avion bi ko Vox Arena mayee à sens. kii la mhm. saisir na sens bi. waaw mais démb tamit ku boobu am na grand combat bu ko tëj doxoon ci diggante Ronaldinho. bu Colobane bu Tëngéej di moins risque. ak Koña bu Colobane mbooloo mais Koña numéro 2 dafa ñàkk combat bi par 4 parce que bëri nañ bëri bu neex bëri bu tar waaye ñaari technicien lañ xamoon seen jël mhm. ci noonu lay mujjee mhm. Ronaldinho daan ko Ronaldinho nekk xale boo xam ne tuutaay boo ko gisee bind bi man mhm. nga ko xeeb waaye bërikat pire la démb loolu moo fa amoon ñuy remercier i daal di ko encourage di wax ne vraiment ah metti mais xam nañ ne mu ngi góorgóorlu parce que làmb dem gisuñu fa parrain gisuñu fa mais terewul jëngu na ko ak ñi koy jàppale ba tëgg làmb ji ah, macha allah loolu tamit jar na encouragé macha allah euh, di ñaan sponsor yi nañu ñëw jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci lu làmb ah, ndax làmb sponsor moo ko moo ko yor ndax ñi nga xamante ni ñoo di promoteurs yi bu ñu amul sponsor day xaw a métti trop ci ñoom day métti ci ñoom bu baax a baax kon di tàllal loxo sponsor yëpp nañu ñëw jàpp ci làmb ji parce que li ko Babacar di waxee rek làmb c'est le sport de chez di leen jox rendez-vous incha allah allah ak di ñaan réew mi yàlla ci yàlla def jàmm. amiin Abdou di kontaan ci yow. Mhm. di la ñaanal jàmm yow tamit. maanaam yàlla na yàlla lafal la defal ko bépp doomu aadama. amiin amiin tamit ñi dañuy suivre à travers Equivox TV. fu ñu mën mhm. nekk si àddina bi rek. Mhm. Ah, di leen ñaanal jàmm. di bëggee ñëpp di wax ne jàmm yàlla ko yàlla saxal Sénégal. amiin barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci àddina bi yëpp. ak saa ma ko jàmbur jaajëf. bàyyi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ci gën a neex. nga barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk yi boobu lay gëj a maa ko daa ko bëri fuuf ko ma ko bëri sax danaa ko damm ba toog ci kaw bu fekkee dafa am fu moom lu ma bëgg a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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk